ci recrutement juróom benn fukki junni ak juróom ay ndaw loolu benn pàcc la ci ndax bi président de la république décidé def programme d'urgence bi dafa wax nit ñi ñu waxtaan ci gox yi ak gox-goxaan yi ci département yi nit ñi def CDD yéeg ci région yi def CRD wax li nga xam ni mooy seen seen seen xaar seen seen seen mébét ci emploi des jeunes au niveau de chaque département donc loolu moo tax ci programme d'urgence bi loolu benn pàcc la ci juróom benn fukki junni ak juróom ay ndaw góor ak jigéen dina leen jël ci biir département yi ci euh, ci ci liggéey yoo xam ne nii ci wàllu reboisement la ci wàllu cadre de vie ci wàllu tourisme ci wàllu sport ci wàllu santé ak ci yeneen wàllu yoo xam ni sama naataango ministre de la jeunesse dina ci ñëw léegi loolu benn pàcc la beneen pàcc Euh, convention nationale état employeur nga xam ni président dafa décider que ne daf koy yóbbu ci benn milliard yóbbu ko ci fukk milliard ak juróom lan mooy convention état employeur convention état employeur ndaw ñi suñu jàngee ba pare génn dem dem wuti liggéey ci entreprise yu bëri dañ leen wax ne amuloo expérience parce que amuloo yaa ngi soog génn école amoo expérience état taxawal ak convention boo def ci xaalis def ci milliard pour que ndaw boobu su demee ci entreprise bi entreprise bi di fay génn wàll gi état di fay génn wàll gi entreprise bi ci tënk ndaw bu ñëw ci entreprise war a am fa stage à travers la convention état employeur entreprise war a fay te euh, fukki ñaar fukki junni entreprise day day fay fukki junni état convention état bu ñëw fay fukki junni loolu bi ñu ko defee ci ñetti at yi tax na ñu gunge junni ak juróomi téeméeri ndaw yoo xam ne ci milliard boobu dinañ nekk ci entreprise di liggéey état bi di compléter seen seen fay président ne loolu suñ ko buggee yokk baral ko nañ yokk enveloppe bi jële ko ci milliard yóbbu ko ci fukki milliard ak juróom moo tax ñu jàpp na ci programme bi lu toll ci ñaar fukki junni xale dina ci war a mën a ab liggéey ci convention boobu beneen pàcc bi bu am solo ci programme d'urgence bi mooy Sénégal dafa bari ay ndaw yoo xam ne nii nekkuñu ci école nekkuñu ci liggéey nekkuñu ci formation président décidé ci biir programme bi que ne lu toll ci fanweeri junni xale trente mille xale ñu tudde leen ay apprenti ñu tudde leen ñi nga xam ne ñu nekk école dugg teel a génn seen jàng yàqu mais ñu tudde leen aussi ñi nga xam ne ñoo génn ci daara yi parce que mën nga am sa doom décider mu dem jàngi alxuraan su pare état daf ko warul jox ko métier gunge ko pour mu mën a dugg dans la vie active ñooñu ñu bare leen ci programme bi fanweeri junni place yoo xam ne nii dana tax xale yooyu di jàngi ci atelier artisanaux yi mais aussi di dem compléter seen njàng ci école de formation yi nekk ci seen gox-goxaan yi donc muy formation en alternance nga nekk apprenti nga génn école dugg école teel a génn wala nga nekk nga génn ci daara bëgg a jàngi métier programme boobu moo lay jël dina la yóbbu ci école ci ci ci ci atelier artisanal bi mais dina la yóbbu ci école bi pour nga compléter sa formation ñooñu nag président décidé que ne waxuma ko ci nasaraan léegi dinañ leen jox ñetti junni ci comme bourse pour seen formation loolu lu am solo la dafay fa dafay régler ñaari problème benn mooy xale bi su génnee école su teel a génne école wala mu génn daara wala mu nekk ci apprenti dina formation boobu dina mën a tax mu toog ci dëkkam mën a jàng métier mais xale boobu nga xam ni dafa nekk ci atelier bi di fa jàng métier su ngoonee wala bu samedi wala dimanche mu dem ci centre formation bi complété formation kooku dina tax bu ëllëgee mu nekk beneen nouveau type de maître boo xam ni entreprendre dina ko yomb. li ci jublu mooy que ñooñu ci seen gox suñu jàngee métier tey ci centre bi ngo suba ci centre ci ci ci atelier bi ci ngoon gi ci centre bi bu ñuy demee ba jeexal seen formation dañuy am seen yëfi bopp tëgg seen programme li ñuy tuddee business plan pour que institution financière yi notamment la DER ñëw financé leen donc loolu pacc la ci biir programme d'urgence bi beneen pàcc mooy président dafa jàpp parce que loolu statistiques yi ñoo ko wan que ndaw ñu bëri ñuy génn di wut liggéey amuñu compétence maanaam amuñu métier li ñu koy wax ci la mu ne kon day indi li ñu tuddee bon de formation nga nekk ndaw bëgg a jàngi métier état gunge la fayal la sa formation pour nga dem jàngi métier loolu ñaar fukki junni ndaw la ci biir programme bi 20 000 jeunes qui vont bénéficier de bon de formation pour mën a dem jàngi jàngi métier beneen pàcc bi ci biir formation en euh, apprentissage actualité tey bi war nañu ko tey ñu ngi wax ne ci ñetti at yi ñetti junni. doomu aadama génn nañ àdduna ci ay accident li ko waral li jël ci nit ñi la donc ci CDD ci CRD yi nit ñi wax ne xale yi wax ne bëgg nañ ku leen gunge ñu am formation am permis su euh, ñu am formation sécurité routière pour mën a am permis donc ci programme bi am na ñaar fukki junni xale yoo xam ni aussi dinañ leen gunge pour ñu mën a am euh, formation su euh, su ci conduite ci code la route ba mën a am seen permis beneen bi des. ci programme bi mooy ne euh, président dafa décider jàppale xale yi nga xam ne ñoo nekk ci école yu ndaw yi ñu tudde leen préscolaire jardin d'enfants ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci primaire ñu wutal leen ay tenue du ma ñëw ci njëriñu tenue yooyu ci biir école bi parce que ñëpp d'accord nañ ci mais loolu dafa am beneen aspect boo xam ni mooy aspect économique bi lalu ci biir xale yooyu toll nañ ci ñaari millions ak ak 2 euh, millions cinquante mille jeunes yoo xam ni woon bu ñu ne xale bu ne ñu wutal ko ñaari tenue day nekk daanaka ñeenti million ak juróomi téeméer yi euh, juróomi téeméer yi yoo xam ne war nañ ko ñawal xale yi loolu nag état du Sénégal daf koy subventionné ci biir programme bi maanaam état du Sénégal day génne xaalis bu takku. pour mën a gunge waajur yi pour ñu mën a jënd tenue yooyu pour xale yi mais loolu lu ci am solo mooy ci département bu nekk ci commune bu nekk. tailleur yi nga xam ne ñoo fa nekk ñoo ci liggéey pour defar tenue yooyu gannaaw bi nga xam ne ministère de l' éducation nationale joxe na euh, spécimen yi benn pàcc bi mujj mooy ci wàllu entrepreneuriat ak financement ci programme bi am na un important volet formation euh, en entrepreneuriat ñu demee ni ay PSEJ dañuy dugg ci programme pour gunge ndaw ñi pour ñu def seen parce que bu ñu bëggee régler problème emploi il faut que ndaw ñi. nangoo def seen yëfi bopp mais def seen yëfi bopp nag dafa am yoon muy parcours d'insertion boo xam ne lañ war a gunge xale yi jàngal leen tàggat leen tàggat leen lañ leen yore seen yëf bu ñu paree ñu financé leen président décidé ci programme bi que financement yi nga xam ni DER moo ko doon def à partir de ce programme dañ koy territorialiser yóbbu ko à tout le moins au niveau des départements xaalis bi nga xam ni daanaka toll na ci 75 milliards de francs CFA ci financement dañ koy tas ci biir département yi pour que ci biir département yi ñu mën leen financer directement loolu nag pour ñu def ko dafay am li ñu tuddee pôle emploi entrepreneuriat pour les femmes et les jeunes te département bu nekk ci ñeent fukki département ak juróom mun naa ñeent fukk ak juróom benn ndax Kër Massar dina am pôle emploi entrepreneuriat yi nga xam ni commencé nañ leen installé ci buy pôle boobu dafay am au moins dina am ANPEJ dina am 3FPT dina am DER dina am ONFP dina am euh, euh, euh, APIX dina am ADP mooy yeneen structures yu mel ne yoo xam ni ñoom ñëpp dañuy liggéey ci wàllu gunge ndaw ñi pour ñu am pour ñu am liggéey donc jàpp naa ne pour tontu ci question yi de manière globale loolu mooy li nga xam ni les principaux pas maanaam mooy juróomi tànk yi wala juróom-benn tànk yi nga xam ne nii programme d'urgence bi tënku na ci pour mën a gunge ndaw ñi ñu am liggéey. jàpp naa ne monsieur le ministre loolu laa amoon ci li ma dans un temps su amaatee yeneen leeral ma dellu siwaat yi jërëjëf